fi ñëw tey di. di dox si tànk si tànk jàmb. dama leen a nuyoole. da a bëgg fekk. ak ñii ñu fi fekk. nga xam nga xam ne ñoo séq. lislaam ji. lislaam ji. sëriñ bi sëriñ bi. li fi xewoon itam. li fi xewoon itam. xew ci suñu biiru njaboot. xew ci suñu biiru njaboot. mooy waxtaane ko loolu mu ne waxtaane loolu nag. moo nu fi tey. moo nu fi indi tey. gan ña ñoo nekk nii sama ndijoor. nee na gan ñi ñoo nekk nii ci ndijooram sëñ Saaliw. ñu jógee ci Cerno Madani. ñu jógee ca Cerno Madani. Cerno Madani Taal. Cerno Madani Taal. muy sëtub Cheikh Omar. muy sëtub Cheikh Omar. te Cheikh Omar ñun ñëpp ñu dégg ci histoire. te Cheikh Omar kat ñun ñëpp dégg nañ ci histoire. digganteen ak waa Mbàkke. digganteen ak waa Mbàkke. ak bokk gan bokk ci Fuuta. ak bokk gan bokk ca Fuuta. ak diggam ak maam Maharam. ak seere yam seere woon. ak seere yam seere woon. sëriñ bi ci sëriñ bi. te booba sëriñ bi ñëwagul. ca booba sëriñ bi ñëwagul. loolu lépp di lu rafet. loolu lépp di lu rafet. ñu di ko rafetal ba léegi. ñu di ko rafetal ba léegi. seytaane nag bëgg cee dugg. seytaane nag bëgg cee dugg. moo tax ñu moo tax ñoom ñii ñu jóg ñëw. bëgg ñu bëgg ñu bokk waxtaan. ba seytaane sa mën a sori fii fépp. ñii fi taseel nag. nee nag ñii ngeen fi dajal jàkkaarloo ñoom. mu bëgg leen nuyoole ak ñoom. bu ma tuddee sëñ Saliou Fall bu tuddee Serigne Saliou Fall mii ngeen jàkkaar lool. tudd sëñ Cheikh. tudd Serigne mii di rakkam. ak Serigne Moutala Fall mii moom sëñ Abdou Sakkoor. tudd Baye Ndam Fall mii moom sëñ Mortala ñooñu ñoo am Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ñoo bokk wenn waajur. ñee toog ci seen ginnaaw it seenu njabolan muy Cheikh Moussa Fall Falilou ak sëñ Ibrahima Fall Ndar ak sëñ Aliou Fall mais moom maam daam Sall rakki maam Cheikh Ibrahima Fall ja da ko wax sëñ Mbenda daal xafoor ak mbooleem njaboot gi sëñ Bassirou Fall mu sëñ Cheikh dëggee nga nee sëñ Modou Fall mu sëñ Sidi noppee nee bi mu noppee nag ci Baye Fall yi. mu bëgg ñëw nuyoo kilifa yii. mu dellu it gën ñoo nuyoo kilifa gii. kilifa yii kii sëñ Modou Lo la tudd. nee na kii sëñ Modou Lo la tudd. moom Baye Serigne Lo. moom Baye Serigne sëñ Modou Lo Issa. moom sëñ sëñ Xaadim Lo. moom sëñ Assane Lo. moom sëriñ Assane Lo. moom sëñ Mat Lo Isa. moom sëñ Mat Lo Isa. sëñ Mat Lo moomee. sëñ Mat Lo moomee. bokk ak sëriñ Masamba. bokk ak sëriñ Masamba. soxna Isa moomee. soxna Isa moomee. ñoo ànd ak seeni rakk. ñoo ànd ak seeni rakk nii. bi ñu ñëwee nag. nee bi ñu ñëwee nag. liñ fi indi. liñ fi indi. mooy dogal googu suñu borom dogaloon. mooy dogal googu suñu borom dogaloon. ci sëriñ Moustapha Niang. ci sëriñ Moustapha Niang. ni dafa war a wàcc ab liggéey ci biir waar wi. ni dafa war a wàcc ab liggéey ci biir waar wi. mu wàcc ci. mu wàcce ci. ba mu wàccee itam. ba mu wàccee itam. ni man la njëkk a nee moom mii la njëkk a woo. nee naa ko jottali sëriñ Mountakha. nee na ko jottali sëriñ Mountakha Mbacke. sëriñ Mountakha ba mu ko déggee. sëriñ Mountakha nag ba mu ko déggee. mu diis ko lool. mu diis ko lool. waaye mu gëm yàlla lool. waaye mu gëm yàlla lool. nangu lool. nangu ab dogal lool. boobee itam. boobee itam. la ma joxoon ndigal. la ko joxoon ndigal. ci ci ne na ñëw. ànd koog Baye Fall yi. ànd koog Baye Fall yi. lu ca war nag. lépp lu ca war nag. moom la war moom la war moom sëñ Muntaxa. mu warloo ko. mu warloo ko it. daal di koy def daal di koy def nag ba mat sëkk. ma ñëwee itam. nee ba mu ñëwee itam. ci la xamee ne. ci la xamee ni. moom sëriñ Moustapha moomee. moom sëriñ Moustapha moomee. da doon jàmbaar. da doon jàmbaar. di ko bëgg lu baax. di ko bëgg lu baax. waaye booba sëñ Modou Lo mi waaye booba sëñ Modou mi ñu jàkkaarlool moom la doon siyaare. itam. nee ba ñëwee itam. ba mu laajee ban wax ko ni ko. sëñ mët loola doon siyaare. ñu woo sëñ Modou loo ñu woo sëñ Modou Lo. ma woo sëñ Seex mi woo ko. mu nekk ci yoon wi di ñëw. mu nekk ci yoon wi di ñëw. mën nañ ko mu egg. mu ne ko nañ ko nekk ba mu egg si. ba mu ñëwee itam. ba mu ñëwee itam. wax la ko kilifaam digal. mu wax la ko kilifaam digal. muy sëriñ Moussa Naawel. muy sëriñ Moussa Mbacke Naawel. sëriñ Moussa itam. sëriñ Moussa itam. ci ndigalu sëriñ Mountakha rek ci lay dox. ci ndigalu sëriñ Mountakha rek ci lay dox. ci lay dox loo waa këram. ci lay dox loo it waa këram. sëñ Modou it ba mu ñëwee ca la dox. ndax sëñ Moussa da ko waxoon na ñëw. ndax sëñ Moussa da ko waxoon ne ko na ñëw. ñu jébbal ko boroomam. ñu jébbal ko boroomam. ndax dafa sahid. ndax dafa sahid. te loolu la sëñ Mountakha seere te loolu la sëñ Mountakha seere woon. ne yàlla. ne ku ne ci yoonu yàlla. di liggéey. di liggéey. ba wàcc ci ab liggéey. loolu mooy ku sahid. loolu mooy ku sahid. moom la Moustapha def. ba sëñ Modou lu ba sëñ Modou lu muy ñëwee itam. danoo delloo nee danoo delloo lépp de. ñu ñu jullee ko ci kanamam. mu jiitu fa kanamam. ànd ak kilifa yi Fall yëpp. ànd ak mboolem kilifay Baye Fall yëpp. ndax Baye Fall yi itam. ndax Baye Fall yi itam. dañoo daal di dañoo daal di yëg ni. seen àndandoo moo wàcc. seen àndandoo moo wàcc. nekkoon ci waar wi. nekkoon ci waar wi. ba wàcc moom itam. ba wàcc moom itam. tax ñoom itam. ba tax ñoom itam. la leen ci waroon lépp. la leen taxawaay cib taxawaay. ñu def ko ñu def ko. defin wu rafet. ñu ànd lépp. ba lépp àgg. kon bu ñu ñëwee tey. kon bu ñëwee tey. sëriñ Saliou ñëw. sëriñ mii ñëw. ci turu sëriñ Amdi Moussa Fall. ci turu sëriñ Amdi Fall moom Cheikh Moussa Fall. ànd ak ñi mu àndal ñëpp. ànd ak ñi mu àndal ñëpp. te ku ci ñëwoon mu doy. te ku ci ñëwoon mu ne loolu day dañ koy rafet bu baax a baax. sëñ Modou itam. sëñ Modou itam. mu ñëw ànd ak bokkam. mu ñëw ànd ak bokkam. ñu rafetlu ko lool. kon gan ñi. kon gan ñi. mu di leen xamal ni leen. ñii ngeen fi fekk. ñii ngeen fi fekk. ay bokk lañ. ay bokk lañu. ñoo doon kilifa. ñoo doon kilifa. ki wàcc. ki wàcc ab liggéey. ñun ñëpp nag. ñee ñun ñëpp nag. sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mooy suñu kilifa. moom kaddu. moom kaddu. moom lu muy wax. moo am lu muy wax. nun nun liñ ci moom. liñ ci moom. mooy rafetalante mooy rafetalante rek. ci suñ diggante ci suñ diggante. waaye décision. waaye décision nag. sëñ Mountakha moo ko sëñ Mountakha moo ko ci moo ko ciy jël. moo ko sañ jël moo ko sañ jël itam. lépp it ci moom lañ koy delloo. man nag lii la nee moom nag sëñ Cheikh Mbacke moom seen objectif lii la ci amoon de. nuyoo leen nuyoo ñu xam tànk yi. ba ñu xam tànk yi. ngeen xam kenn ku nekk. ngeen xam kenn ku nekk. ni mu taxawee ci mbir mi ni mu taxawee ci mbir mi. buñ ko xamee. buñ ko xamee rek. lépp lépp daal di yomb. lépp nag. lépp nag. mi ngi jaar ci sëñ Abo Sall. ne mi ngi jaar sëñ Abo Sall mii mu làngal. ndax moom. ndax moom mii. mooy ndawul sëñ bi. mooy ndawul sëriñ bi. ci wetu Thierno Madani. ma wetu Thierno Madani. bu Thierno Madani ma bu Thierno Madani soxlaa. moom lay yónnee si. moom lay yónnee si. bu sëñ bi soxlaa. bu sëñ bi soxlaa moom la yónni ca Thierno. moo tax ndaw yi moo tax ndaw yi démb. moom lañ àndal moom lañ àndal. mu yóbbu leen sëriñ bi mu yóbbu leen fa sëriñ bi. yóbbu leen fa Cheikh Bass. Cheikh Bass santaane woon nag. jataay bii ne nan ko amal. ne amal ko nag fii ci kër gii. moo tax mu woote woon ci kër sëñ Amdi Modou Mbenda. laaj ko ni mu bëggee laaj ko ni nga bëggee jataay bi. ak fi nga bëggee rek ñu defe ko fa. ñu juboo woon ci defe ko fii. kon ñëpp ñëw nañ. kon ñëpp ñëw nañ. nuyoo la leen. nuyoo la nañu. ne loolu moo ci doon wàllam. ne mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di wax asalaamaaleykum. wa rahmatulahi taala. ne ku ci am kàddu yoo war a sànni. mën nañ koo sànni. li ñuy def nag. suñu aboo mii ci la ñuy njëkkee. ndax moo indi gan ñi. moo jox kàddu gan ñi. bu noppee. ñu delloo ko ci. Serigne Saliou ak sëñ Modou. ñu rafetal ko ban rafetal ko. ba tàggoo ci jàmm rek. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Hmm. kon ñun ñëpp ñu waxee déglu kàddu yi ni ko sëñ Cheikh waxee sëñ Abo Sall nee mi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. nee na mi ngi siyaare bokk yi fi teew yëpp. di jiital ci siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha. nee teg ci ci tijjee ci sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou di ci tegit bokk yi fi nekk yépp nag ndee na di wax ni tànk yii tànki jàmm la ak salaam nee mbir mi xew diggante ay jullit ay taalibe ak bokki dëkkandoo muy mbir mu diis nag mu metti moo xam ne mii kenn ku ne metti nga ko am am nga ci yëg-yëg itam waaye dañu nag jëlaat lépp delloo ko yàlla sunu boroom rek xam ni lépp mooma ñii nga xam ne bii wet gi nga xamante ni gi nga xam ni fa mbir ma xewe nee ca cey faar yi danoo jóg dem ca seen kilifa muy Cerno Madani dem yégal ko xew-xew bi biñ ko ko waxee fekk yég na ko ne booba yëgu ko booba mu xamal li ni man day yëguma ko ndax man duma déglu journal du ma déglu rajo benn information boo xam dama koy jël ci média yi ci média yi. xanaa lu xew. xanaa rek. nit ñëw wax ma nit ñëw wax ma rek. waaye nag yow mi ma ko wax si. nag. yëg naa ko léegi. waaye nag foofu. ci diggante boobu yi dara xaju fi de lu may jàmm. njabootu sëriñ Touba. njabootu Cheikh Omar Foutiyu. jàmm rek mooy xew seen diggante daal ni ko Abu Sall ñëwal dem ci Cheikh Mouhamadou Mountakha jébbalal ma ko njaboot gi yóbbul ma njaboot gi boo demee xamal ko ni ko lii sama njaboota mbir nag xew na muy mbirum yàlla moo tax ma jël sama ndaw. moo tax ma jël sama ndaw. jël sama kàddu jël sama kàddu. jox la ko jox la ko. nga dem fa sëriñ bi. jébbal leen ko. xamal ko ni. du mbir mu ma neex de. du mbir te xam naa ne moom itam neexu ko. te xam waaye nag yàlla la. suñ borom bu indee ab dogalam. nan ko nangu rek. ñëwee. bi ñëwee. alhamdulilahi gis nañ sëriñ bi. waxtaan nañ ak moom. yóbbu na njaboot gi. bi demee itam. xamal nañu ni. mbir mu diis la. mu metti la waaye nag dañ koy delloo ci suñu borom rek xam ni lépp yàlla la fii lu fi waay sàkku da nga ko am rawatina wàllu njéggal ku fi sàkku si ak njéggal dangay am ak njéggal li des nag rafetalante rek ci la wooye sëriñ bi jox ko kàddu gi kon du ko guddal kon doon wut am nan ko rek alhamdulilahi rabil alamina moo tax nag ñu jug ñëw ba koo séeréel àdduna bépp xam ni jàmm rek a fi am li fi nekkoon moo fi nekk ba tey xam nañ ni xam nañ ni lépp jébbal nañ ko sëriñ bi muy sëriñ Touba jërëjëf nee du ci guddal de nee lii rek la ci doon wax sëñ xaadim géey mii nag li ko ci boole li ko ci boole jëmm nga xam ni jëmm ji nga xam ni moo jiite délégation bi moo jiite délégation bi moo ko ci boole. lam cey wax lam cey wax moo koy wax moom du ko wax. kon sëñ Xaadima koy wax. sëriñ Soxay bu Mbàkke mi itam ne moom la àndal bërki dem ba tey ba yëf yi xëyoo ba tey moom la ko àndal fu mu fi dugg rek ba muy dem kër Seex Bas moom la àndal ba muy dem ci sëñ bi moom la àndal lépp lépp fekk war na ko nitu jàmm la ak salaam moo tax lu may def daw ko ciy boole rek alhamdulilahi rabil alamina nun daal faal njaga lii leen doon wax jërëjëf faal nee mi ngi jaale nag sëñ Modou Lo nee ni la koy jaale bu baax a baax di ñaan yàlla suñu boroom mu jéggal ko moom sax jéggal na ko ndax deew sayt ci la dee ci la faatu rawatina waaru Serigne Touba bi rawatina waaru maam Cheikh Ibra kon alhamdulilahi rabil alamina metti na nag loo waaye alhamdulilahi lañ ci war a teg de ñu la koy siyaar baax loo Cerno ma daani nee na mi ngi la koy siyaar bu baax ak communauté pulaar yëpp nag ñu ngi la koy siyaare jërëjëf loo bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba waaw sëñ Xaarim ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér. mi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou taxa Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp. ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne lépp mu liggéey ko. Ah, maa ngi siyaare Serigne Cheikh. nee na mi ngi siyaare Serigne Cheikh. di siyaare sëñ Saliou. muy dellu siyaar it sëriñ Saliou. waaye nag maa ngi jégalu maa ngi fab siyaar bépp. waaye nag mi ngi jégalu di fab siyaar bépp. teg ko ci sëñ Mouhamadou Moustapha. teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadou Moustapha. moo nekkoon sama jëwriñ. nee moo nekkoon jëwriñam. ca Gasaan ca Gasaan. sëñ Moustapha mi wax doomi sëñ Saliou. waaw muy sëñ Moustapha Mbar mais ca ginnaaw waaw waaw. maa ngi koy jégalu te xam nag moo nekkoon sama jëwriñ nee mi ngi koy ca gasaan ndax booba gone ko ndaw laa ndax booba nee moom mii gone la ban may ban may indi dan maa leew moom mii bu timis Fallou. nee na booba bu timis jotee moog sëñ Fallou. ci ñoom lay nekk ba ñoo ñoomay tëral. ci ñoom lay nekk ba dem tëral ko. kon nag maa ngi koy siyaare baax. kon nee mi la koy siyaare baax Fall. ah di jéggul nag ci kàddu yi. nee muy jéggul nag ci kàddu yi. ndax xam naa ni sax fii moom jataay bi. ndax xam na ni jataay bi kat waru fee waxee. waaye nag sëñ Omar Dee mii. waaye nag sëñ Omar Gueye mii. sëñ Omar Dee. sëñ Omar Dee. moo ma fi tax a ñëw. nee moo ko fi tax a ñëw. Serigne Touba seere na ni de. Serigne Touba seere na ni de. xaw ma cee faal. xaw ma cee faal. xaw ma ñooña. xaw ma ñooña ni dégg laa ko waaye. nee ni ko dégg rek moo la ko dégg waaye mu mii de xam na ko. ndax li ma xam ci moom. ndax li mu xam ci moom. 87. 87. ba sama baay ba ko Serigne Abdoulaye Mbacke joxe station bii mu nekk station bii ci gaar bu ndaw. nee baay ba ko Serigne joxe station bii ci gaar bu ndaw. 2009. mu àgg. mu àgg. muy booba jamono béppee moo am. booba jamono béppee moo am. moom mii moo nekkoon kilifa ga. boobu bii moom mii moo nekkoon kilifa yàlla suñu borom boole kook sama waajur. yàlla suñu borom boole kook waajuram alaaji sëriñ Gueye. mu di ko jàppale. mu di ko jàppale. ci liggéey bi ci liggéey bi. te boobu ay tubaaba ngi fi. te boobu ay tubaaba ngi fi. bu njëriñ ñëwee. bu njëriñ ñëwee. loo xam ne war naa jëm ci alaaji Serigne. loo xam ne war naa jëm ci alaaji Serigne. dana défendre alaaji Serigne. dana défendre alaaji Serigne. ñàkkaloo tubaab yi. ñàkkaloo tubaab yi. ba loola am ba loola am. bi yàlla dogee ñuy dox bi yàlla dogalee ñuy dox nag ba ci kanam ba ca kanam mu ne allaaji sëriñ mu ne allaaji sëriñ yow lii war ngaa am société yow lii war ngaa am société booba kenn xalaatu woon nit ku ñuul te booba kenn xalaatul nit ku ñuul war ngaa am licence station war ngaa am licence station mu jàppale ko ca loola mu jàppale ko ca loola taxawu ko ca loola. taxawu ko ca loola. di ko défendre. di ko défendre. ba deux mille quatre vingt dix huit. ba deux ba quatre vingt dix huit. ba nga xam ni Abdou Diouf. ba nga xam ne Abdou Diouf leer na ni léegi station licence mën naa am. leer ko station licence mën naa am. mu toppatoo ko mu toppatoo ko. ba licence ba génn ba licence ba génn. nga xam ne lépp lu am. nga xam ne lépp lu am ñoom société SES ci société SES bii. di di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal Serigne Touba. loxo mën ci bu ci bu baax a baax moom mii. Alaaji taxawu na ko. Alaaji Serigne taxawu na ko. seere na ni bu dul woon moom mii. seere bu dul woon ak kon yaakaar naa ni ah ci mbaaxu Serigne Touba. kon yaakaar naa ci mbaax lépp Serigne Touba la am fu koy jaarale rek. waaye yaakaar naa jaar na ko ci loxo. waaye yaakaar naa jaar na ko ci loxoom nag. ba mu fi Alaaji Serigne jógee ba tey. ba fi Alaaji Serigne jógee nag ba tey. mu taxaw. mu continué di taxaw. di taxaw saa su nekk di ñu. di leen su nekk di leen neem moom day sëriñ bi lii rek moo ko moom moom laay seere ci nee moom rek lay seere ci moom sëñ Saliou liggéeyal sëriñ Touba xam ne liggéey sëñ Touba moom moo taxoon Alaaji Sëriñ samp société bi moo taxoon Alaaji Sëriñ Guèye samp société bii te it jàpp naa ni te jàpp na ni ndimbalu sëñ Touba la ndimbalu sëñ Touba la ndax sëñ Abdoulaye moo ko waxoon ko ndax sëñ Abdoulaye ko waxoon ni ko Alaaji Sëriñ alaaji maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba sa mbiri àddina yëwén sa mbiri àddina yëwén sa kon jàpp naa ne gàttali wax rek kon jàpp naa ci gàttali wax daal li ma xam daal mooy jëmm ji moom la xam moo jëflante ak sama waajur moo jëflante ak waajuram bii lépp liggéey bi lépp luñ fi liggéey sëriñ Touba loxo ma nga ca ndax moo ci taxaw ndax moo ci taxaw te def na ci ba xam loo xam sax te def loo xam ne sax ay kilifaam ci boppam mere woon nañ ko ci waaye nag alaaji Fall jéggulu ci kàddu yi di jéggulu ci kàddu yi. ñaan ci barkeb ñaan ci barkeb Serigne Touba. sëñ euh, sëñ kii Ndiaye ma sëñ bu wàcc liggéey sëñ Moustapha Niang mi wàcc liggéey yàlla na dajeeg Serigne Touba yàlla na dajeeg Serigne Touba mu teral ko mu teral ko comme ni ko sëñ Moussa ko sayid la comme ni ko sëñ si waxee ni ni ko sayid la ne mi ngi jégalu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nee na mi ngi nuyu mbooloo mi maa ngi fi dee ànd ak samay jarbaat ak sama doom. nee mi ngi ànd ak ci mbooloo mi ay jarbaatam ak i doomam. sama mbokk yi jóge Mbàkke ànd ak mbokkam yi bàyyi ko Mbàkke di di di di di taalibe yi Cerno Madani. Cerno Madani Taal. waaw Yaxya Aan moo ko jiite. ca Yaxya Aan jiite leen. xam booba nee ba nañ koy xam moom mii booba xale bu tuuti la. maa ngi leen di sant di nee mi ngi sant ñëpp di leen gërëm. suñu tànk tey nag. nee suñu tànk tey nag. tànk jàmm rek tànk jàmm rek la. ndax mbir mi ba mu amee. ndax mbir mi ba mu amee. ñun ñii cay faal lañ ñoom ñii cay faal lañ cosaanu. waaye yaroowu ma fa. waaye yaroowu fa. juddoowu fa. juddoowu bàyyi daa gaaw a dugg ci nee bàyyam daa gaaw a dugg ci armée ci nekk soldaar. dem Maroc. dem Maroc. foofu la ñu juddoo. nee ñoom foofu la juddoo. ba mu ñëwaatee fii. ba ñëwaatee fii. ay Podor lañ ko doon affecté. ay Podor lañ ko doon ak Thiès Fatick Fatick. Kutaal fu nekk aw nañ fa. ba mu jël à la retraite tam la soog a ñibbi fii. ba mu à fii ci lay doog a xam Cay Faal. Cay Faal na sama maam. nee Cay Faal maamam. déedéer moo ko sanc. déedéer moo ko sañc ba mu ko sancee foofa. ba mu ko sancee foofa. booba ba tey jii. booba ba tey jii yàlla xam na ni. yàlla xam na ni lu rafet rek dox diggante Cay Faal ak Touba. samay maam. ne ay maamam. ay baayam ay baayam. ñoom ñëpp ñu ngi fii ci Gede ñu. ñoom ñëpp ñu ngi fii ci Gede ñu suul. ay taalibe rek. ay taalibe rek ka fa nekk. lii am nag. lii am nag. métti nañu ba fu métti nañu ba fu métti yàlla xam na ne. yàlla xam na ni. ñun ñii suñ fa nekkoon. ñun ñii buñ fa nekkoon lii du am. waaye ay xale rek a waaye ay xale rek a fa nekk. mag ñëpp dem nañ. mag ñëpp dem nañ. ñu ngi ñëw nag di masawu. nee nag ñu ngi ñëw ñoom ñii di masawu. di jégalu si di ko ñaanal di ko ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana xam na ne taalibe sëriñ bi xam na ne taalibe sëriñ bi bu demee ci condition yii bu demee ci condition yi mu demee yaakaar nañ ne fa mu dem yaakaar nañ ne fa mu dem du ko naqari ñu ngi baalu àq ñu ngi baalu àq ba mbir mi ne ba ñu mbir mi dañoo dem ci Cerno Madani dañoo dem ca Cerno Madani Taal ne ko kat ne ko kat am na lu xew ndax jéye am na ci ndax jéye am na dañoo bëgg nga wutal dañoo bëgg nga wutal ñu pexe jéggalu bu nu demee Touba jéggalu ji. masawuñu fa gaañu masawuñu fa gaañu. jaale leen leen. mu boole ñu góor gu baax. mu boole ñu góor gu baax gii. sëñ Abou Sall. démb ba tey. démb ba tey. moom maa ñoog moom. ñoog moom. sëñ bi yóbbuñu fa sëriñ bi. yóbbuñu ci sëriñ Cheikh Mbacke mi toog. sëñ Cheikh Mbacke mi toog. ñu toog fii tey jàkkaarloo njabootu Cheikh Fall gi. metti na nee na metti na de. metti na trop. waaye nag ay jullit lañu. waaye nag ay jullit lañu. waaw yàlla moom lu mu àtte rek. yàlla lu mu àtte rek kenn mënu ca dara. la fa xew keroog. la fa xew keroog loolu la yàlla dogal loolu sama borom ngeen baal ñu àq bu baax ngeen baal ñu àq bu baax a baax. ñu ngi jégalu bu baax a baax. nee xam na li ci des. sëñ abu mii sëñ abu mii dina ko mottali. incha allah incha allah jërë ngeen jëf. sëriñ Souhaïbou boo ngi nuyu mbooloo mi. sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke mais mi ngi sant yàlla bu baax a baax nag. di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. di yeesal sunu pas-pas. di yeesal sunu pas-pas ak sunu jaayante. ci Cheikhuna al Xadim. di ñaanal bu baax. di ñaanal bu baax. Maulana. Maulana. Cheikh Mouhamadul Muntaxa. Cheikh Mouhamadul Muntaxa. mu yàgg fi lool te wér. comme ni ko sëriñ Abo waxee léegi. comme ni ko sëriñ Abo waxee léegi. ak délégation bi mu àndal. ak délégation bi mu àndal. bàyyi ko. bàyyi ko ci Thierno Madani Tall ci Thierno Madani Tall. di kenn ci sëriñ bi. di kenn ci sëriñ bi. di wëllëreem. di wëllëreem. di xaritam di xaritam. di ànd ak moom it. nee di ànd ak moom it. liggéeyu lislaam liggéeyu lislaam bi. nga xamee ni bi nga xamee ni. maam yi ñoo ko fi taaloon. maam yi ñoo ko fi taaloon. Euh, li xew nag. li xew nag. metti na lool metti na lool. waaye nag. waaye nag. tooñ lu mu rëy rëy bàkkaar lu màgg màgg ak njéggal féete na ko kaw te biñ demee ci sëriñ bi démb te benn demee fa sëñ bi démb sëñ bi loolu la ñu wax sëñ bi loolu la wax metti na ma lool nee metti woon na ko lool de waaye nag mënuma def lenn mënuma def lenn lu dul jéggale kon kon ñu xam ne ñu xam ne li ñu tax a jug ñoom ñii. ñoom ñii. ñëw fii. ñëw fii. mooy sàkku njëggal. mooy sàkku njëggal. njëggal nag moom. njëggal nag moom. kenn du ko wut si. kenn du ko wut si. ci Cheikhul Khadim. ci Cheikhul Khadim. ca doo ko am ca doo ko am. ndaxte moom. ndaxte moom. Euh, lim fi nekk lépp. lim fi nekk lépp. dañ ko doon tooñ. dañ ko doon tooñ. waaye da daan jéggale. waaye da daan jéggale. tubaab yi. tubaab yi. dañ koo tooñ. dañ koo tooñ. jàpp. jàpp. yóbbu exil. yóbbu exil. jàpp jàpp. tëj ci kaso tëj ci kaso. jàpp jàpp. def résidence surveillée. def résidence surveillée. waaye ba mu demee ba jekku. waaye ba mu demee ba jekku moom Sëriñ Tuubaa. afawtu la wax dañuy afawtu la wax. afawtu andil ax daari dañuy afawtu andil ax daari. ñëpp la jéggal ñëpp la bokk jéggal. Sëriñ Tuubaa tamit Sëriñ Tuubaa it. ku ko xam ku xam. am ko ci jàmm xam ko ci jàmm. wooteem bii wooteem bii. ci jàmm rek ci jàmm rek. ci la ko teg ci la ko teg. li ñu tuddee li ñuy tuddee. nee li ñuy tuddee. non violence. non violence Serigne Touba. Serigne Touba da ko gën a jëmmal. da ko gën a jëmmal. li ko gën a jëmmal. ci àdduna ci àdduna. moom ci la bokk moom ci la bokk moom Cheikhul Khadim. danaan naan ndax danaan ñaan di wax naan. yàlla yow yàlla. na nga gindi. na nga gindi sama njaboot. sama njaboot te. te lor bu ci am. lor bu mu ci am. jooy bu mu ci am jooy bu mu ci am. bii di xayaal yi. bii di xayaal bila bukkaay yi bila kon Cheikhul Khadim moom ci jàmm rek ci la daan dox ci la daan dox. ci la daan wax ku ne xam na tamit. ku ne xam na tamit. diggante. diggante. kër Cheikh Omar fuuti kër Cheikh Omar Foutiou. ak kër Cheikhul Khadim. ak kër Cheikhul Khadim. loolu sax avant sëñ bi di gën a jamono. loolu sax laata sëñ bi di gën a jamono. ndax Cheikh Omar Fouti. ndax sëñ Omar Foutiou. ñëw na Mbacke. ñëw na Mbacke. xibaar sëñ bi. ci xibaar sëñ bi. ak ñëwam. ak ñëwam. te boobu sëñ bi feeñagul. te boobu sëñ bi feeñagul jamono. te loolu. te loolu. sëñ Moussa Ka. sëñ Moussa Ka. bind na ci téere. bind na ci téere. ñoom ñii tamit. ñoom ñii tamit. way juru waajuru xalifa bi waajuru xalifa bi Cerno Madani Taal muy Cerno Madani Taal Cheikh Mouhamadou Mountakha Taal Cheikh Mouhamadou Mountakha Taal téeréem saxal na ca loola saxal na ca loola sëriñ bi tamit sëriñ bi tamit bi mu feeñee jamono bi mu feeñee jamono ku fonkoon Cheikh Omar la ku fonkoon Cheikh Omar la léeg-léeg sax ci ay mbindam léeg-léeg sax ci ay mbindam ñu gis ñu gis fu muy delloo fu muy delloo Cheikh Omar Fuuti Omar Fuuti fu mel ne ci Jawharun Nafis ba mu ciy bind nee ba mu ciy bind dellu na dellu na ci Cheikh Omar Fuuti ci ba muy wax ci wàllu ci baabu saani ba muy wax ci wàllu baabu saani kon yooyu yëpp kon yooyu yëpp da koy tegtale rek da koy tegtale rek relation bu bu dëgër nee na relation bu dëgër bi nga xam ni moo am ci diggante bi moo am ci diggante bi. sëñ Abo Sall mii. sëñ Abo Sall mii. nga xam ne. nga xam ni. sëñ Muntaxa. sëriñ Muntaxa. démb. démb. daf ne ko. daf ne ko. yow yaay sama xamsatu waslin. yow yaay sama xamsatu wax. yaa may jokkale. yaa may jokkale. ak Cerno daani ak Cerno Madani. fa mu dëkk. fa mu dëkk. yaakaar fa. yaakaar fa. di Gédé. xalifa ba tey xalifa ba tey Cheikh Omarul Fuuti Omar Fuuti yu lan ko tuddee kon loolu lépp kon loolu lépp am na lu muy tegtale am na lu muy tegtale kon ñoom njaboot gi kon ñoom njaboot gi njaboot Cheikh Omar ndi njaboot Cheikh Omar bu ñëwee Touba bu ñëwee Touba fekk fi lii nii fekk fi lii nii liñ bëgg rek lañ fi mën a liñ bëgg rek lañ fi mën a amee jàmm rek lañ fi amee euh, sécurité rek lañ fi am nee sécurité rek lañ fi amee lii xew na xew na lii xew na xew na ñu ngi koy jaal ñu ngi koy jaal sëriñam sëriñam di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla mu bokk mu bokk ca ña alxuraan di wax naan ca ña alxuraan di wax naan bu leen jortu ni bu leen jortu ni ñi ñu faat ci yoonu yàlla ñi ñu ñi ñu faat ci yoonu yàlla dañoo dañoo faatu dañoo faatu waaye dañuy dund waaye dañuy dund fa seen borom fa seen borom di bég lool di bég lool di yàkkamti te di yàkkamti ña nga xamee ni ña nga xamee ni bàyyi adduna noonu bàyyi adduna fekk si leen ba xam ci luñ nekk fekk si ci xéewal gu réy gan nekke loolu lañ yaakaar ci ñoom yal na ko ko yàlla defal yal na yàlla saxal jàmm ci dëkk bi saxal ko ci réew mi te yàggal fi lool suñu kilifa yi ndax ndaxte lii xew yii xew yii xew ci dëkk bi ci dëkk bi xew lii xew ci réew mi ci réew mi bu ñu amutoon bu ñu amul woon ay kilifa ay kilifa yu xam li leen war yoo xam li leen war xam seen responsabilité xam seen responsabilité su boobaa réew mi kenn doo xam fu mu mujj waaye nag Sénégal waaye nag Sénégal yàlla defal na ko xéewal yàlla defal na ko xéewal xéewal goo xam ne xéewal goo xam ne kilifa am nañ kilifa yu mel ne yu mel ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xam ne nga xam ni xam na moom xam na moom lam war a def lam war a def xam na xam na lam war a wax la mu war a wax ak kañ la koy wax ak kañ la la koy wax. kañ la koy def ak kañ la koy def. kilifa yu mel noon nag kilifa mel noonu nag. ku leen am ku leen am. da nga nga leen di fonk. te weg leen te weg leen. te wormaal leen te wormaal leen. topp seen i ndigal. waaye nag yii xew léegi. waaye nag yii xew léegi. ci réseaux sociaux yi. ci réseaux sociaux yi. bëgg ñàkk kilifteef bëgg ñàkk kilifteef. réew ya ko réew ko def. jigu leen jigu leen de. kon Sénégal gii. kon Sénégal gii. fonk li ñu am nan fonk leen am. ndax jàmm ñu am day. ndax jàmm ji ñu am day. dara mayuñu ko dara mayuñu ko. kilifa yu baax yi xam nañ li ñu war a def xam nañ li ñu war a def xam nañ li ñu war a wax xam nañ li ñu war a wax kon nañ leen gën a fonk kilifa yi baax a baax ñu ngi ñaan yàlla daal ñu ngi ñaan yàlla daal sëñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi lool te wér lool ci barke Seexunal Xadiim wasalaamu aleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nduyu mbokki islam bépp waaye rawatina yoonu murit tey jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mamadul Muntaxa mi nga xam ni mooy suñu kilifa gi nga xam ni mooy yilif suñu kilifa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko wér noo ngi nuyut sëñ di Fall moom sëñ Modou Mbend mi nga xam ni moo toogee jotaayub suñu maam Cheikh Ibra Fall di ko ñaanal tey sàkku ci koo xam ni image bii tegu sa bët tegu na ci nga ñaanal ñu ko mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu kilifa yi ci jotaay bi di ko dale ci nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ni moo fi toogee jëmmi sëriñ bi te mat ko sëkk di nuyut sunu kilifay bopp yi nga xam ni ñoom la sëriñ Serigne bi booleel ñu ñëw fii ci jotaay bi ngir eh, amal waxtaan ak mbokk yi. di nuyu tam ak a beral ziar eh, waa kër Thierno muntaga Tall gi noo ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm laa tey loolu nag kon ñuy feddliwaat sunu dellu ci sunu borom. di ñaan yàlla képp koo xam ni dégg nga kàddu yi nga ñaanalal ñu Serigne Moustapha Niang tawféex jooju nga xam ni moom la ko sunu borom defal mu wàcc ci toolub lislaam boobu sama borom gën koo ful te gën koo dolli ci jëmmam ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom la fa fekk ak ko fa fekk waaye di jaale nag ba tey rek ni ñu ko defee woon sëñ sëñ euh, Moustapha Niang mii juróom ak soxna Jeeg Njaay mi nga xam ne mooy juróom bu jigéen ak sëriñam bii di sëriñ Mudloo te nga xam ni moom lañ doon njabootam ñu ngi leen koy jaalewaat di ko yeesalaat bu baax di rotal nag kàddu yoo xam ne xaj na du bari ndax suñu kilifa yaa ngi nii dafa fekk ni nag ñi nga xam ni ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi dafa am noo xam ni noonu lañu ko euh, lañ koy sàmmee muy war may Tuubaa jooju ci kàddu googu ci la ñuy waxe waaye sëriñ Saliou mii moo fi jëmmi sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ñuy xamal nag ñëpp ne nun moom amuñu lu ñuy bëgg amuñu lu ñuy tànnal suñu bopp Cheikh Mamadou Muntaxa mii nga xam ni ñun waa kër maam Cheikh Ibra Fall alali Serigne Touba lañ ci ak bëggam rek ci la ñuy nekk suñu yëngutu ak suñu dal lépp day dellu ci coobarey Cheikh Mamadou Muntaxa ndax moom mooy liggéeyloo am di Fall moom Serigne Modou Mbend mi fi maam Cheikh Ibra Fall njabootam gii nag di ay jumtukaayam yoo xam ne ñoom ñoo koy tàbbil tàbbil ci liggéey boobu ci loolu rek la nekkoon Euh, suñu sang bi daaneel léegi te sant Mbàkke waxe bi biix di xiyaali bi laa bukkaa i googu ci loolu ci lañu tënku juguñu nag benn yoon ngir teg kenn fitna waaye dañoo bëgg ñu xam ne li ñu sëriñ bi santoon ba jëmmi jamono jii ñu nekk ci loolu rek ñun ci lañ fas yéene nekk muy dëkkub sëriñ Touba bii nga xam ni sëriñ Touba moo ko faggul boppam nekk fi diirub juróom-ñaari at yoo xam ne génn ko benn yoon te mën nañu wax ni boobam moom moo nekkoon chef de village dëkk bi toppatoon kaamile alxuraan yi wala kurusam wala ay rakka ba tax mu bàyyi woon dëkk bi ci muy doxe noo xam ne wuute naag na mu ko bëgge moom moo ko daan saytul boppam fuñ fi war a tegum néegum ñax mooy wax fañ ko war a teg fu fi teglu lu fa wër nekk mooy wax ñu jëlee ko fa diir boobu yëpp noonu la nekke woon dafa fekk ne nag dëkk bi ca yooyu jamono ñi fi nekkoon ànd kook sëriñ bi mooy njabootuk boppam gi nga xam ni ci li mu bëgg rek ci lañu nekk dem na nag ba Touba mel ni am réew kenn ku nekk ñëw fi te ñenn ñi xaj na dikkewuñ fi maam pas-pas boo xam ne moo leen lënkale seen diggante ak Cheikhul Khadim waaye nag am koom am na ñoo xam ne moo leen fi indi am na ñoo xam ne xat-xat yu ñu am ci fa ñu dëkkoon moo leen fi indi teewul nag li lépp lépp li loolu di amit Serigne Touba di koo xam ne saa naxin bi laa dara la njariñ lu àndut ak lor kenn ku ci nekk ci ñooñu uuf na la yaatal la dëkk yow fas yéene ngay jariñu te doo loola nag mooy li sóob Cheikh Mouhamadoul taxaa mii ci liggéey bii nga xam ne da koo jox maam Cheikh Ibra Fall bëgg képp koo xam ne da ngaa dëkk si ak Serigne Touba nga nekk ci jàmm nekk ci kaaraange goo xam ne ci sa dund nga koy am waaye boo faatoo tam ci noonu ngay nekk loola nag mënee su koo am lu ci tënku ci ponk yi nga xam ne ci ci ci doxalin wi nga xam ne moom la lislaam indi Cheikh Mouhamadoul Mountakha terewut dara ci dëkk bi loolu ne lu sunu borom tere la yonte alayhi salaatu wasalaam tere ko maamam ju tedd ja ak baayam yi fi jaaroon tere ko bañ na ko ba keroog bi mu koy yeesalaat mbind ma Seex Abdul Ahad Mbakke bindoon te àndoon ko dëppoo ci moom ñi mu fi bokkaloon nekk di rakkam rakkam mu bokkal Serigne Touba kenn ku nekk ab signature nekk ca loolee rek mooy li mu sant njabootu maam Cheikh Ibra Fall gi ngir ñu yaatal ko nit ñëpp man cee tënku ngir ñu mucc ci àdduna mucc alaxira dëkk bi àggoon na ci bi fi Serigne bi nekkee set ak sell ak civilisation boo xam ni suñu am satu jaxate nettali na ne boo masaan lekk sax génn. bëgg bant boo sécurité munoo ko am ci dëkk bi ngir taxaw ko taxaw ci wàllu zahir ba mu set ba sell ba ba bant boo for sécurité ko rek dalay jafe loolee nag mooy wéy ba jamono bii suñu demee nag ba gis ne ku toll ni Cheikh Abdoul Ahad li mu gisoon ci ay taq-taq ak ay tilim-tilim yoo xam ne bokkut ci ni sëriñ bi sànce woon dëkk bi mu mu mu ngir saafara loole wax ca waxam joojee sëriñ bi leeral na ko du jariñu ñu ciy dellu si loolee rek ci la Cheikh Mouhamadoul Mountakha nekk ñu xam ne tam ñun ñii di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall amuñu ak tànn ci lenn suñu sëriñ bi li li lu ngeen gis ñu nekk te di ci yëngutu rek sëriñ bi moo ñu ko sant te ku ne xam na communauté Baye Fall force bi nga xam suñu borom fàggu sëriñ Tuubaa fàggu na ko ci biir njabootam googu di maam Cheikh Ibrahima Fall kon bu fekkoon ñun danoo jug ngir teg benn violence wala benn fitna yaakaar naa dana jaxasoo lool waaye tënkuwuñ ci lool duxuñ ci loolu lii tamit nga xam da ngeen a ñëw di ko jéggalu si ni ñu ko waxee rek. Euh, sunu borom moom moo njëkk a doon ki nga xam ne moom mi nu moom ab jéggale waa kon la sëñ bi wax na ko léegi dafa wax ni sëriñ bi bi ko bi mu demee ba noon yi li ñu lu nañu teg ko ko bi mu demee ba man leen a teg fitna dani afawtu anil aada i turran li wacci man nafaahum li xayri sarmadan lastu atfaaw nee na man du ma jël benn ngànnaay di ko jëmale ci ñoom waaye nag nañu xam ne teg na ca ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muxafa man xalaaniya yardahu nee na man xam naa bu wér ci xilmul yaqin ne sama borom nekkal na ma mustafaa nekkal na ma te képp koo xam ne yaa may tooñ wala nga def lu lu méngoowut ak loolu so yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo lay alagal boppam kon day mel ni moom ku ko tooñ dana la jéggal dana ci am tuyaabay ku jéggale waaye nag du tax kookee mucc kon nañu moytu di tooñ njabootuk Serigne Touba li mun taxaa bëgg nag ñun loolu rek lañu bëgg ay ay ay jumtukaayam lañ yoo xam ni daf ñuy jëfandikoo ci ni ko soobee te loola ñu nangu ko nako ko sunu maam ju tedd ca nangoo woon ndax wax nañ ni bi mu nekkee fii moom moom Serigne Touba bi mu ñëwee te nit ñi xamuñu ni ñu war a àndeek moom te maam Cheikh Ibrahima muy koo xam ne ci dogalub suñu borom moom la yàlla sunu borom euh, jaarale ci diggante nit ñi ak Cheikhul Khadim ngir ñu mën a jariñu léeg-léeg daana am noo xam ne bu ko nit jëflantee ku baax ki day ñëw fës faj loola. nee ñu nag bu boobaa mbokk mii di Serigne Darou Assane Ndiaye moom la cheikhul xaddim daan wax ne ko waxal sa mbokk mi nee na bu ko xëccee ba mu dem nee mu ne ko waaw góor nii nga nekk dama koo munut waaye nii rek la kii du koo xam ni des koy def morom wala ñu ñu ñu ñu di ko diir mbagg foofee nag fala la fa la ñu nekk ba nëgëni dikkuñu fi nag maanaam na na seen xel dal ci ne foofee ñu demoon ba loolee xew fa te ña ko doon def doon ko def ci ndigalul sëriñ bi yóoruñu woon benn ngànnaay wala lenn loo xam ne luy fitnaal kenn la ndax su loola amoon yaakaar naa nii mu demee beneen côté lay tëddee faatu ku ne xam ne ne lu diis gan la waxuñ ne dañ koo woyefal waaye dañoo jubloo xam le ne ñoon suñu jëmm yi jëmm la yoo xam ne sëñ Tuubaa ko moom bu ñu doon fër maanaam jeex takk ci ndigalu sëñ Tuubaa loolee ñun man nañu koo def waaye nag li ñu sëriñ bi sant mooy sëriñ bi dem na ci géej gi ba ñibbisi te xat damut foofee fa la ñu nekk te fa lañ fës fa la bi sant mboolem kuy wuyoo faal te bokk ci kër Cheikh Ibra Fall nga tënku ci loolu nañu fexe ba li sëriñ bi bëgg na am te du ànd ak benn fitna ñoo ngi tuub kàddu yi te di ko jéggulu tey xam le nag la ñu nekkoon daal muy liggéey bi sëriñ bi santaane woon ñoo ngi ci képp ku yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall loolu ci lañ tënku waaye nag def ko ci anam bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi santaane muy lépp sotti te dara du ci du ci lëj ñu ngi tuub kàddu yi ndax fii ñu toog waruñu fa yëkkati kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu maa si déglu Cheikh Saliou Fall sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ñoo ngi lay delloo nuyu te di siyaare jéggulu coono yi. waaye nag Mbàkke di la jéggulu coono yi. li jëriñ waxtu wu ne. ndax yow kat li nuy jariñ waxtu wu ne. tey bàyyi koo ci sëriñ bi. tey bàyyi koo ci sëriñ bi. ci mi lay jaar si. nee ci yow mi lay jaar si. muy baatum ndigal. ñu jot ko ñu jot ko. kon nee ñu ngi lay nuyu. di la jottali it nuyoo murit yëpp rek. ci sëriñ bu tedd boobee nga bàyyi ko. nga bàyyi ko. nee ñu ngi koy nuyu ca di ko siyaare te di ko ñaanal suñu borom defal ko fanu gudd wu ànd ko wér ci barke maamam nee ñu ngi nuyu nag ñii ñu fi fekk si nee yéen day dañ leen di fay ab nuyoo ndax yéen yéenee gan ñi nu nuyu kon dañ leen di fayub nuyoo wa waaleykum salaam wa rahmatullah nuyu nañ leen di fayub nuyoo it ke ngeen bàyyi ko muy seen kilifa gu mag googee ngeen bàyyi ko ne ñii leen fi wax rek doyoon na sëkk de di ci ci diggante Thierno Mountakha ak sëriñ Mountakha ne loolu rek doy na sëkk ci ak jotal lii nga xam ne nag dafay xew bakkan dafa rëy ba buñ ko defee lor ko lor ko faawu danañu ko yëg faawu danañu ko yëg surtout ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci ndigalul sëriñ bi ndax wasilaam ci yoon wi mooy sëñ daam mii waaye nag liggéey bii ñu sëriñ bi jox bim ñu ko joxee dafa am lum nu wax ba mu ñu njëkkee booleeg sëñ Basiiru gouverneur ñëw na préfet kilifa ak yi sëriñ Abdoul Ahad ak sëñ Basiiru moom sëriñ Abdou Khadir Mbàkke waaye la sëriñ bi waxoon ba tey ca loolee lan sëriñ bi daa wax ni bëggul ku dóor de bëggul ko xawi sutura bëggul ku rey ci ndigal ca ñun nag ci ndigal. ci la ñuy tënku. doxin wi ñuy dox yépp ci ndigal lañ tënku. li sëriñ bi bañ. di bañ. duñ ko def mukk muy xaawi sutura. muy dóor muy rey. du ngeen dégg mukk ni def nañ ko. waaye nag ndigal li ba sëriñ bi joxe. danoo fas yéene. mu am moom. ndax foofee ngeen bàyyi ko ka ngeen bàyyi ko ca moom. lii sëriñ bi aaye. lii sëriñ bi di aaye. noonu la leen ko yàlla sante. noonu la leen ko yàlla sante. ak ñi mel ni ñoom. ak ñi mel ni ñoom. ñu di ko def. ndax tereb yàlla. leetaram bi mu yónnee ci yonant bi. wax li mu bëgg. ñooñu ci lool rek lañ tënku. sëriñ tubaa ci loolu lay dox kii ko fi nekkal di moom it ci loolu lay dox nee dafa bëgg dëkk bi li neexul yàlla neexul yonent bi neexul sëriñ tubaa ñu dindi ko ci dëkk bii muy ndigal ci ñun baay faal yi ñun nag ndigal sun bakkan bii lañ ciy teg waaye nag duñ rey kenn de duñ dóor kenn duñ xaawi sutura it waaye li sëriñ bi bëgg moom fas nañ yéene pexe yu nu mën a def ba mu am danañu ko def moom loolu mooy li nga xam ni moo fi am ñii nga xam ne bii kii nga xam ne dafa faatu. kii nga xam ne daa faatu. te wasilaam nekk nii toog. dafa bokk ci yoon wi moom. bi bi joxe ndigal. bi sëñ bi joxe ndigal. ñi nu bokkal yoon wi. ñi nu wi. ñu yaakaar sëriñ bi. ku ci ñëw wàcc nañ fi yow. wax la ndigal li wax la ndigal li. ni la nan ko bokk. ni la nan ko bokk jàpp. ndax ndigal loolu sëriñ bee ko joxe. ndax sëriñ bee ko joxe. te ñun ñëpp a ko war a def nag. moo tax dongaam boobu. di loo dugg ci biir kër Cheikh Ibra ba lii fekk ko ci nee loolu rek la de ak njéggal nag am ngeen ko ndax sëriñ bee leen njëkk a jéggal te ñun suñu lépp nag mi ci biir sëriñ bi lépp lu sëriñ bi bëgg rek noo nga ca loola ñun Baay Faal yi ba mu jéggalee rek ba mu bu ngeen fi teggee woon tamit nee na sunu xol day sedd guy ñu ne sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda. sëñ Amdi ci boppam sëñ Amdi ci boppam. moo du fi yabal si nag. te la tax mu yebal si nu. la tax mu yebal si li sëñ bi ni ñi gaañule. sëñ bi ni ñi gaañule. ñi leen di jéggulu nañ dem ca ñoom. ñi leen di jéggulu nañ dem ca ñoom. loolu rek tax mu yebal tax mu yebal leen. waaye moom ba ñëwee ci sëñ bi. waaye ngi ba ñëwee fi dem lii rek la de. liggéey bi nag. dañ koy wéyal moom. yéen itam fu fu ngeen fi mën a ne. lii lislaam sant sëriñ bi. yéen itam. ci loolu ngeen war a tënku. sëñ bi moomul dëkk bi rek tax. muy def lii su ko su ko mënoon ci réew mépp da koy def waaye da ci am dëkk yooyu sañ-sañam dafa dul egg nag waaye sañ naa digle nag fii nag am na sañ-sañu aayeelu ko wut ñu ko koy aayeel di ko wëral dëkk bi di ko xoolal di dindi li fi wërta am fii sëriñ bi tëdd ak njabootam gi ak ponkal yi mu àndaloon wares naa am kersak du fi def lu dul loona lu dul noona kon nun buñ fi jógee ñun ñii di njabootu Cheikh Ibra nga xam ne ñooy dox liggéey bi. nan gën a takku nan gën fas yéene li sëriñ bi bëgg. moom. ñu def ko rek. setal dëkk bi ci lu dul noona fas yéene it fas yéene it. duñu dóor duñu rey duñu rey. duñu xawi wax na ko ay yoon de. du dóor du rey du xawi sutura. wasalaamualeykum. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ndax lii dal ci sunu kaw. ndax nee na lii dal ci sunu kaw. muy bakkan bii dem. moonu gënal. moonu gënaloon. ñun ñu faat ñun ñu faat kenn. nee bu faatoon kenn. kon day mel mooy. nee kon day mel ni sëñ bi li wax dañ koo mooy. sëñ bi dañ ne woon ne kat ba ñu jox ndigal bu leen dóor kenn. bu leen rey kenn. bu leen xaawi suturas kenn. loolu nag defuñu ko ñun. kon sant yàlla ci loolu ñun. jërëjëf Fall. nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. nee na Serigne Cheikh moom sëñ Abdou Latif kullu murid mi nga xam ne moo fi nekkal xalifa général de kullu murid ñu ngi lay nuyu ci turu turu sëñ Modou Lo sëñ Modou Lo Issa ak sëñ Dame Bale Lo ak sëñ Dame Bale Lo muy ab xalifaam muy sama kàddu nee ci kàddoom kon sëñ Modou Lo moom Baye Serigne Lo te mu ànd ak ñenn ci njabootu kër gi ci njabootu kër gi. sëriñ xaadim loo. sëriñ xaadim loo. moom Baye Assane loo. moom Baye Assane loo. moom sëñ Modou Lo Issa. moom sëñ Modou Lo Issa. moo nekk nii nee moo nekk nii. sëriñ xaadim loo sëriñ xaadim loo mii ci desit. sama rakk la rakkam la. moom itam Baye Baye sëriñ loo mooy waajuram. nee moom itam Baye sëriñ loo mooy waajuram. moom sëñ Modou Lo Issa. ak sëriñ Cheikh Lo mais. moom it ñoo bokk Baye sëriñ loo. nee Baye sëriñ Ndiaye mële Euh, moo moo moo moo bàyyi Moustapha. moo bàyyi Moustapha. nit ak doomi bàjjanam la nit ak doomi bàjjanam la. Moustapha mi nelaw. ñoom ba seen ñoom ci ak taalu bi rek lañ tënku. ne ñoom ci ak taalu bi rek lañ tënku de. dañ ne maa ngi fi. dañ ne wax ne ko ginnaaw yaa ngi fi. kenn du ñëw kenn du ñëw de. sëriñ Meyit sëriñ Meyit. li tax mu teew li tax mu teew. daa nekk ci sama kër. daa nekk fa këram. ca Ngaabu moo tax ñu ne ko. moo tax ñu ne ko. kon ginnaaw yaa nga fa. ginnaaw yaa nga sëñ Modou nga fa sëñ Modou nga fa. kenn ci ñun du kenn ci ñun du ñëw. loole ñu ne kenn du ñëw nag. loolee ñu ni kenn du ñëw nag. moo tax moo tax. bi mu amee bi mu amee. te am ci ak mbóomeel. te am ci ak mbóomeel. ma bëggoon a ñëw ba gis ko. mu bëggoon a ñëw ba gis ko rek. yëkkatiwaat lépp yëkkatiwaat lépp. teg ko ci loxol sëñ Muntaxa. teg ko ci loxol sëñ Mouhamadou Muntaxa Mbàkke. ak ndawam lii. di sëñ Seex di sëriñ Seex. mu moom lépp mu moom lépp. ak ndaw li nga xam ne ak ndaw li nga xam ni. moo jóge ci sëñ Hamdi moo jóge ci sëriñ Hamdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda. ñu taxawu ko taxawu ñu taxawu ko taxawaay bu mucc ayib. takkusaan ba timis takkusaan ba timis. di sikkar di ko wër. di yor ay kurus di ñaan. nga xam ne ab xalifa sax jóge na fi ci amul denc bi Moustapha Niang am. kon loola kon loola. Euh, li ma lim ci jàngate. mooy mooy. demu Moustapha gii demu Moustapha gii. dafa xëttale. dafa xëttale. yoon yi yoon yi. xëttale na yoonu kër sëñ Modou Issa. xëttale kër sëñ Modou Issa. ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall. ak ak kër maam Cheikh Ahmadou Bamba. ak ak kër Cheikh Omar Fouti. taal. ndax nemmiku yi muy def. def. na dem na ba gaaya. ca euh, néeg ba nga xam ni. ca néeg ba nga xam ni. maam Cheikh Ahmadou Bamba. maam Cheikh Ahmadou Bamba. ak Cheikh Omar Foutiyu. ak Cheikh Omar Foutiyu Taal. néeg bañ daje woon. néeg bañ daje woon. bokk fa nekk bokk fa nekk. ñu won ma àlluwa ja ñu won ma àlluwa ja nga xam ni. Cheikh Omar Foutiyu Taal Cheikh Omar Foutiyu Taal. ca la dale baa ca la dale baa. ku ñuy wax Adama Sow. ku ñuy wax Adama Sow. moo ko yor moo ko yor. kon kon. jullit jullit. ak ak ak mbokkam. ak mbokkam. dañoo war a jàppante. dañoo war a jàppante. ni birig ak morom di jàppante. ni birig ak morom di jàppante ci sima ba jàkka mën a am ba jàkka mën a am. jumaa mën a am jumaa mën a am. kër mën a am kër mën a am. néeg mën a am mën a am. kon nag ndigal li nga xam ne nii. kon ndigal li nga xam ne nii. jóge na ci sëñ Muntaxa Mbàkke jóge na ci sëñ Muntaxa Mbàkke. muy xaadimu rasuul muy xaadimu rasuul tàmbaliwu ko de. tàmbaliwu ko de. waaye eh, eh, eh, da koy mottali. waaye da koy mottali nag. ñaari doomi sëñ Touba. ñaari doomi sëñ Touba. muy sëñ Abdoul Ahad muy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké. ak ñam mbokkal jamono. ak ñam bokkal jamono. ak Cheikh Saliou Mbacké. ak Cheikh Saliou ak ñam mbokkal jamono. ak ñam bokkal jamono. ñoo njëkk a wax. ñoo njëkk wax. ci liggéeyub Touba bi ci liggéeyub Touba bi. jëfe ndigal yi jëfe ndigal yi. bàyyi tere yi bàyyi tere yi. bi ñooñu jàllee. bi ñooñu jàllee. sëñ Alaaji Baara Mbàkke sëñ Alaaji Baara Mbàkke moom sëñ Fallu moom sëñ ak ak sëñ Sidil Mbàkke doon ci ñu doon ñoom it ñu jaar foofu ñoom it ñu jaar foofu seen waajur jaar nga xam ne ñaari doomi sëñ Tuubaa ak ñaari sët sëñ Tuubaa ak ñaari sët sëñ Tuubaa jiitu nañ jiitu nañ sëñ Muntaxaa ñëw ñëw te naka jekk daf leen a mas di topp daf leen a mas di topp kon nag kon nag bu agsee bu agsee bëgg a mottali loolee ñun ñi doon ay taalibe danoo war a laxasaayu. ànd koog euh, mboolem ñi nga xam ne nii ñooy ñooy liggéey liggéey. ànd koog mboolem ñi nga xam ñooy liggéey liggéey bi. muy njabootu maam Cheikh Rafal gii. xam ne li sëñ euh, Muntaxa bëgg. xam ne li sëñ Muntaxa bëgg. faaw mu am faaw dina am moom. faaw mu am faaw day am de. dee leen jëfe ndigal yi. dee leen jëfe yi. te bàyyi tere yi te bàyyi tere yi. nañ ko mën a defee nag. nañ ko mën a defee nag. ba deret di tuuru. ba deret di tuuru. bakkan du loru. bakkan du loru. luñ ca man luñ ca man nan nan ko jàppale. nan ko jàppale. ci liggéey maam Cheikh ci maam Cheikh bi ñu koy liggéeyloo. ndax loo xam ne. ndax loo xam ni. li maam Cheikh waxoon ni li maam Cheikh waxoon ni. mbirum sëñ Tuubaa mii mbirum sëñ Tuubaa mii. jàpp leen ci mu dem. jàpp leen ci mu dem. su ngeen ci jàppee mu dem su ngeen ci jàppee mu dem. bu ngeen ci jàppul mu dem bu ngeen ci jàppul mu dem. te ngeen cee jàpp mu dem te ngeen cee jàpp mu dem. ngeen dese sag bi ngeen dese ñun sag bi rek la ginnaaw dese. lool yomb na lool. ku fi gis luy jariñ ku ko wax ci ci xalifa nga ko wax ci kilifa yi Baay Faal yi ku ci gis luy lor ku gis nga xam ne luy lor la te nga xam ne luy lor la na ko wax kilifa yi na nga ko wax kilifa yi ndax kat wax ci réseaux sociaux yi ndax ñiy wax ci réseaux sociaux yi bi yëf amee bi yëf yi amee lañ njëkk wax lañ njëkk wax Baye Fall yi rayati na Baye Fall nit xam nga ne Baye Fall yi xam nga baay Fall rayuñu de dañu nga leen dañoo ray ci ñoom dañoo ray ci ñoom te it kii fi toogal Baye Fall yi te it kii ñoom ñi ñëpp seen kàddu ñoom ñi ñëpp seen kàddu ray lu dóor lu dóor lu leen digal waaye liñ leen digal fas nañ yéene mu am fas nañ yéene mu am kon ñiy déglu ñëpp kon ñiy déglu ñëpp xam ne gi jóge ci Sëñ Amdi Modou nan xam ne kàddu gi jóge ci Sëñ Amdi Fall Modou benn ñi ko fi nekkal jottali ñi lu wuñ ray lu wuñ dóor lu waaye liñ leen sant waaye liñ leen sant faaw mu am faaw dina am de dana am ñu sol ay tëni nag dana am nag ñu sol ay tëni nuru Baye Fall nuru baay Fall te duñ bàyyi faal te duñ bàyyi faal te duñ laale ñii dara te duñ laale te loola luñ yàq te ñooñe luñ yàq mu dal ci kaw Baay Faal mu dal ci kaw Baay yi kon nag nañ leen ko sàmmale kon nag nañ leen ko gis ngay dox lu bokk ca loola kuñ dox gis ngay dox lu bokk ca loola ñu signalé la ñu signalé la ñu teel la caa seppi ñu teel la caa seppi xam ne saytaane xam ne saa bu xëyee saa bu xëyee mi ngi ci kër yi mi ci kër yi kër yëpp nag kër yëpp nag bu ñëwee ci gone yi lay tàmbalee bu ñëwee ci yi nag lay tàmbalee bu amul ndam bu amul ndam dem ci jigéen ñi dem ci jigéen ña bu ko amul bu ko amul dem ca mag ña dem ca mag ña bu ko amul bu ko amul mu wàcc mu wàcc bu ëllëgee mu ñëwaat bu ëllëgee mu xëy ñëwaat waaye du tekk laxasaay mukk moo ko dëgg sëñ waaye sëñ Touba nag. ni mu mënee woon ni mu mënee woon. saytaane saytaane. sëñ Touba moo fi ne rek. sëñ Touba moo fi ne rek. sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa daa sonnal ñëpp daa sonnal ñëpp. topp ñëpp topp ñëpp. waay waay nañ ko dimbali waay waay ko dimbali ci liggéey bi. koo xam ne lim lay aaye koo xam ne lim lay aaye. boo ko aayewul boo ko bawul boo ko bawul. cancer a ngi fi cancer a ngi fi. diabète a ngi fi diabète a ngi fi. Euh, xol bu yàqoo ngi fi ngi fi. bët yu la bët yu lëndëm ngi fi. tànk yu bañ a tànk yu méttee ngi fi. te loolu lépp luy lor lépp luy lor doomu aadama la. te yàlla indiwu fi te yàlla indiwu nag. ngir ñu loru ngir ñu loru. yàlla lu baax la bëgg yàlla lu baax la bëgg ci nit ak lu yomb ci ñun ak yomb ci ñun waaye lu jafe su amee waaye lu jafe bu amee daa jaar ci loxo yi ñun ñi kon kon ndax euh, bëgguma woon sax yëkkati. nee bëggu woon sax yëkkati kàddoom. waaye ñi nga xam ne nii. waaye ñi nga xam ne nii daal. ñoo ñëwoon tey jégglu ñoo ñëwoon tey jégglu. ba leen sëñ bi jéggalee ba leen sëñ bi jéggalee. lépp mooma lépp mooma. ñun waa kër sëñ Modou Lo Issa. ñun waa kër sëñ Modou Lo Issa. ndigalal sëñ bi ndigalul sëriñ bi. amuñ ci lu may amuñu ci lu may. jëfe ko. amul ci lu mu lu may lu mu digle. amul ci lu muy digle. ñu jëf ko ñu jëf ko. lu mu tere ñu bàyyi ñu bàyyi loola. xam nga ne jëmm yu tedd yii. xam ngeen ne jëmm yu tedd yii mu janoon. kenn ku ciy jël fetal. kenn ku ciy jël fetal. di ko dóor nit di ko dóor nit. amul amul ci ñii. te Baye Fall it. te Baye faal it ban tàmbalee ba léegi ban tàmbalee ba léegi. xam nga ne kuur ak Baye Fall. nga ne kuur ak Baye Fall. xajul ci nit xajul ci nit. xanaa ci Baye Fall la xaj. xanaa ci Baye Fall la xaj. moom mi koy dóor moom mi koy dóor boppam waaye déggagun benn kuurug Baay Faal waaye déggagun genn kuurug Baay Faal buy dóor bu bu dal kenn bu dal kenn moom tàmbalee ba léegi ban tàmbalee ba léegi nag kon ñu xam ne kon ñu xam ne ndigal li ndigal li ñay def loola ñay def loola seen niti bopp lañ niti bopp lañ buñ jàpp jàmm jàkkaarloog Baay Faal te buñ jàkkaarloog Baay Faal yi buñ ñoroo woon ak colit buñ ñoroo woon ak colit te bokkuñ li ñu doon te bokkuñu lu doon it danañ leen segg ba mu set ba loola dootul am waaye li sëñ bi digle day am rek kon nag seriñ bi ñu ñu ñu njéggal li ngeen doon sàkku. njéggal li ngeen doon sàkku daal. ñun daanaka amuñ fa kàddu. ñee ñun daal amuñu fa kàddu. bi Serigne Cheikh waxee. bi Serigne Cheikh Mbacke waxee. fekk na sax jéggal la am na fekk na sax jéggal la am na. waaye nii ngeen def. waaye nii ngeen def nag. dafa doon liggéey bu mat. dafa doon liggéey bu mat. ndax buñ nee tariixa Baye Fall. ndax bu nee yoonu Baye Fall. mel ne yoonu sëñ Modou Issa daa doon waneen yoon mel ni yoonu sëñ Modou Issa daa doon weneen yoon mel ni tarixa al euh, yoonu alpulaar yi dañoo doon mel ni yoonu alpulaar yi dañoo doon weneen xeet buñ ko déggee noona buñ ko déggee noona day indi ay suusante day indi ay suusante ci ay xol te ñun ñëpp ca yàlla te ñun ñëpp ca yàlla lañ jëm te fa lañ fas yéene ca fa lañ fas yéene àgg te suñ kilifa yi ci loolu lañu woo kon kon ay mbokk lañ ay mbokk lañu ñoo bokk luñ bëgg ñoo bokk luñ bañ ñoo bokk luñ bañ kon ñu xam ne kon ñu xam ne euh, jëfe ndigal jëfe ndigal bàyyi tere bàyyi tere fedd suñu laxasaay liggéeyal sëriñ bi moo nu jëriñ tey moo nu jëriñ ëllëg moo nu tubaa daal ñëpp tooñ nañ ko ne ndax sëñ tubaa ñëpp tooñ nañ ko mu jéggal mu jéggal wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp tooñ nañ ñëpp tooñ nañ ko mu jéggal ñëpp tooñ nañ ko mu jéggal ñëpp kon nag lam dese muy kaaraange gi nan ko ci jàppale jàppale wuñ ko de suñ bopp la jàppale ndax bu kat bu kafe gi nii ku ku naan kenn du la ko forcer ku bëggut a kenn du ko forcer. waaye nag mën nga cee naan rek. waaye nag mën nga cee naan rek. defaru ci defaru ci. ndax ka ko def. ndax ka ko def moom joxe ko ba joxe ko. lam ca namm lam ca namm. moom rek moo ko xam moom rek moo ko xam. ñaan gi nga xam ne sëñ bee koy ñaan. ñaan gi nga xam ne sëñ bee koy ñaan. di ko joxe di ko joxe. Euh, euh, euh, door a waajal ñii. door a waajal ñii. moom day kuñ kuñ waajal. nee moom day kuñ waajal. ci ab liggéey ci ab liggéey. waajale la kër Cheikh Ibra Fall waajale la kër Cheikh Ibra jàpp naa ne fa nga jëm. jàpp naa ne fa nga jëm. da nga fa ñemee da fa ñemee. Moustapha nag Moustapha nag. xëy na kat du kër sëñ Modou Isa. nee na xëy na kat du kër sëñ Modou Isa. gontu kër maam Cheikh Ibra. xëy gontu fa ab liggéey wàcce fa ab liggéey. Euh, tey jii. tey jii kër sëñ Basirou. kër sëñ Basirou. Euh, ak ak mboolem kër sëñ Touba yi. ak mboolem kër sëñ Touba yi. ak mboolem njabootu maam Cheikh. ak mboolem njabootu maam Cheikh. njabootu ndaam gi. ak mboolem njabootu ndaam gi. ak mboolem njabootu euh, Cheikh Omar Fouti yu taal. ak mboolem njabootu Cheikh Omar Fouti yu taal. demu na ñëpp boole na tey. mbokkam yi nag nee na ñoom nee amuñu lu ñuy wax amuñu lu ñuy def ñi ñi ci suñ ginnaaw ñun ñu ñu ñu ginnaaw ne ci ginnaaw sëñ bi euh, di jëfe ay ndigal di jëfe ay ndigal di bàyyi ay tere kon foofu lay wàccee kàddoom li ñu yéenee wax wax ëpp na lii waaye amuñu woon kàddu bi sëñ Cheikh waxee rek la wax ji ferenkulaay ñi ngi baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw sëñ Saliou sëñ Abou nee na mm-hmm. ñoom délégation bi xol yëpp sedd na nee na kenn ku leen yónni it. di Cerno Madaani. bu nu demee. xolam sedd dina sedd guyu. lim séntu woon. ba yónni ñu ci seex Mouhamadou Mountakha. ak njabootu maam Cheikh Ibra. bi ñëwee. amee nañ ko duñ ko bëggee woon nee moom Abou Sall mii nag moo sant yàlla moom moom la yëkkatiwoon mission bi teg ko ci kawam mu di ci kawam lool nag waaye nag mu jël lépp delloo ko sëriñ bi rek ñaan yàlla mu jàppale nu ci kon alhamdulilahi rabbil alamina bin ko amee nin ko bëggee woon baa am nañ ko sax noo xam ne foogewuñ ko woon noonu ñu ngi dellu di sant yàlla bu baax julli ci Moustapha di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér sëriñ Cheikh jërëjëf sant ñu Cheikh Mouhamadou Bassir baax bi mu ñëwee nee dafa dellu si waat lépp tegaat ko sa loxo waaye mottale nga ko nam ko bëggoon defe nga ko noonu jërëjëf Mbàkke voilà tàllal leen wax leen amin